ndax ñi ñu ko jaar ñi ñu ko seqal ay assassin lañu jaaxle nañu jaaxle boo xam ne tey suñu mënoon faat bakkanu Ousmane ko def